Moustapha Diop yaa Mamour Diallo Saint-Louis yaa Mansour Faye yaa Mary Teuw Niane partout c'est comme ça amul benn arbitrage benn arbitrage amul président bi dina resero ay nit wax ak ñoom ñi génn wax li ñuy génn wax la léegi loolu non ñu ñëw ci Dakar nga xam ni. <laughs> dakaar capital capitale la et puis c'est dafa am importance aussi. waaw waaw yooyu ma la ci wax na waaw bu ñu xoolee. Euh, gis nañu taxawaay boo xam ni président am na ko ak Ba. Hmm. ndax loolu dafay tekki ni peut-être mën na nekk le candidat bu yàggul rek moom lañ mujj gis ñu ànd dem Dubaï euh, am na yeneen aussi ñu koy yoo xam ni gis nañ ko ñoom ñaar ndax loolu mën na tekki ni. man nag awma information ni président tànn na Amadou Ba pour mu nekk candidat Dakar. aw ma information boobu. mais mën na ko tànn jàpp nga ni war na mën a nekk Amadou Ba. mais de toute moom amul un million de possibilité amul dakaar moom c'est très clair. c'est-à-dire. non Dakar possibilité yu bari amul fi. c'est-à-dire ci benn bokk yaakaar. cest à ñaar rek a fi am. waaw ñaar kese. muy Amadou Ba wala Diouf Sarr. léegi ma mbay Niang nag. ma may Mame lan fan mooy base électorale fan mooy base am. tey par exemple mën naa jàpp ma mbay yàlla mën na am jeunesse bi mën na am lu ne ah waxuma ni mënul am dara ah, parce que loolu xaw ma ko mën na ëpp doole lépp sax mën ñi may wax sax mën na leen ëpp ay nit mais politique dafa am base booy arbitré tey boo bëggoon teg Mame Mbaye Niang noo koy expliquer parce que Diouf Sarr il maire de Yoff bon il ci ñuy incarné dakaar la depuis toujours élection yi mu def yëpp dans sa commune moo ko gagné depuis bi Macky Sall nekk. yoof ci histoire yoof ci histoire dara la dëgg la ci Dakar. mais bu dee de population. waaw xaaral yoof aussi. ma rien à voir par exemple ak parcelle. est-ce que mën naa pare waaw mais pare gu ma. ok waaw gu ma dama nekk ci Diouf Sarr damay dem ci Amadou Ba après. benn loolu yëpp passé politique gu Diouf Sarr Amadou Ba ñëw des législatives nekk patron politique gu Dakar APR gagné Dakar ñu dem présidentielle. mu nekk patron politique gu Dakar pour la pré pour la première fois depuis longtemps parti au pouvoir gagné biir Dakar waaw mais kooku noo ko mën a seppee fële sepp Diouf Sarr fële ñëw indi Mame Mbaye Niang mooy candidat ci politique noo koy justifier loolu moo ko justifier moo tax ma ni donc dama jàpp ni bu dee arbitrage politique la ñuy def affaire bi soit boo jëlee par exemple Abdoulaye Diouf Sarr ci politique noo koy justifier noo koy justifier non mën nga ni au moins Diouf Sarr il a toujours gagné fi mu nekk. bu dee Amadou Ba aussi. mais Amadou Ba Amadou Ba tey mooy patron politique gu Dakar. te APR ba fi ñuy wax nii mooy patron politique gu Dakar parce que moo moo jiite liste bi aux législatives gagné présidentielle moom moo doon patron politique gu Dakar président gagné am 45 pour cent au premier tour gagné ñëpp raw gàddu ci présidentielle bi donc Amadou Ba dafa am une vraie légitimité pour nekk candidat. c'est ça le problème. d'accord maintenant nag arbitrage yi ngay def mi ngi dépendre ci euh, président kan la gën a sentir ci ñoom ñaar et cetera ak yu demee noonu. amul beneen baromètre bu dul sentir. ah da nga bëgg a wax si tu veux évaluer les chances de gagner. waaw non loolu man am naa ci opinion. ok yaa ngi dégg. Mhm. mais euh, xam nga. aujourd'hui pour man mhm. même bu Diouf Sarr dee dem mhm. pour mu gagner il faut mu ànd ak Ba parcelle moo diis au fait mais c'est réciproque aussi c'est-à-dire Amadou Ba buy dem aussi mais parcelle ak yow parcelle ak yow bokkuñu poids Sénégal dafa am ñetti communes yoo xam ne boo ko gañee gañe nga Dakar mi parcelle Grand Dakar ak Grand Yoff foofu la nit ñi nekk mhm. comprendre man je pense que lii gagné Dakar ticket la entre Amadou Ba ak ak Diouf Sarr parce que ñoom ñaar képp ticket mënul nekk ci li ma bëgg a non li ma bëgg a wax mooy. dama ne ci élection yi dama ne koo ci teg. koo ci teg pour mu àgg il faut keneen ki soutenir ko loolu laa la bëgg a wax. ah mais xam nga ni ticket mënu ci am. non tikke mooy. mais nit ñi mën nañoo bokk en liggéey en synergie. quand même non xam nga ni ticket mënu ci non non pas li ma la bëgg a wax mooy liggéey en synergie. c'est-à-dire. waaw dajale force yi parce que tey. boo tegee Diouf Sarr dajale force ak ban leader. non xaaral tey boo tegee Diouf Sarr te Amadou Ba coopéré wul. waaw du dem. mais c'est valable boo teg non dafa nag boo tegee Amadou Ba. waaw Diouf Sarr coopéré dina metti dina metti waaye dina dem. non mën naa bañ a dem. parce que xam nga tax ma wax la loolu je vais t'expliquer pourquoi. Mm-hmm. xam nga déjà da ngay jàpp ni hmm? mhm. euh, tant que y a la figure tutélaire de Khalifa Sall mhm. Khalifa Sall tant mi ngi exister di bokk ci benn port politique dakaar il faut nga wane lu wóor pour gagner ko pourquoi xalifa mais parce que dafa nekk ci xolu Dakar waaye c'est ça la réalité mhm. tey Khalifa Sall bu amoon possibilité présenté wu ku mu jàkkaarloo fii da lay loolu mooy dëgg bi donc tey ñii waa Benno Bokk Yaakaar possibilité bi c'est relatif boo dégloo camp wu Khalifa jàpp nañ ñi dara mun leen tere bokk ci ay élection da jàpp nañ ni dara mun leen tere bokk